téléspectateurs yi am mbégte dellu si waat ak ci seen émission bi di waree fu gis ngeen image yooyu daara moderne exemple daara exemple daara ëttu diine boo dem ëttu diine boo dem këru diine boo dem ay exemple daara yoo xam ne ñoo ñu moom su fekkonte ne loolu rek kenn du tem fa la macha allah ñu ngi delluwaat di sargalaat ëttu diine yi kilifa diine yëpp fu ñu mën a ne ñu ngi leen di sargal fa tabaarakàlla macha allah di fedd feddali tamit fa tabaarakàlla macha allah suñu taalibe ci ñoom. waaye xam nga ne alaaji gar mi dama ko mujj takkal ceinture de sécurité hmm. ndax jugoon na dem ma koy yeewi te dama fàtte ni zëy naa sama doom xam na dañ ko takk ci weekend te tey zëy ñëwul loolu normal na démb bi mu ñëwee sax dafa ma jaaxal waaye daal xam naa ni daal euh, mbay daal munoo dem moo tax ma takkal la ceinture de sécurité dimbale ma toogee bu passé waaw d'accord moo tax man nangu ko ak sama fukki loxo moom <laughs> tam ñu ngi koy ndokkeel mariage bi wallaay wallaay wallaay mu nekk nag xale bu yaru madame Ndaw xale nekk xale bu baax. waaw fonk leen lool. wallaay wallaay tubarkalla tubarkalla di leen wéttali. wallaay wallaay ndeysaan tubarkalla ba lépp yaatu. wallaay wallaay ndeysaan ba lépp yaatu ñu ko daal mariage daal yàlla na am jàmm mais nag nanu gaaw ndax kër kër gi moom tubarkalla. wallaay wallaay waaw man Mado laa bëgg mu topp ci. ñu ngi leen di jël <laughs> nag dafa bàyyi dafa war a bàyyi taamu gi <laughs> taamu gi la war a bàyyi ndax. ndax concert bi bu ci duggee. Ah. soriwul ah doy na waar doy na waar <laughs> euh, euh, Alaaji mm. bi ñuy récupérer léegi euh, antenne bi ñu ngi sargal bu baax a baax oustaz Aliou Sall. dama ne soo demee ëttu dine boo boo xalaat kokki daal sëñ ndar ga feneen ak feneen ëttu diine daal boo xalaat alaaji jaar nañu ci tarbiya jaar nañu ci taalibe ndax xale xam nañu xuraan li mu war a def ci dënnu xale mm. ah xam nañu xale ni ñu ko war a tàggatee teg nañu xale palaasam mm. waaye li tax ñu jug li tax ñuy wax mm. li wax loo ñëpp mooy li xew fii ci Ndakaaru li ñu gis doyuñu neexuñu fa tabaarakalla macha allah te gëm nañu ne yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew neexu leen ndax kat dañu amul droit jël xale yi sànni leen nii ci mbedd mi. amul koo xamante ne ku ne gisuma xanaa da ngay gëmm kay bañ a xool waaye xale yi moom ku tijji tuuti rek gis fu nekk nga leen di gis ak nu nekk nga leen di gisee ñu ngi fanaan ci mbedd mi mbay soo demee euh, côté. bu la euh, astaghfirullah euh, côté poubelle ya nekk ca Sandaga. guddi 8 rek sept heures rek. billaay billaay da nga yéemu ci kat. billaay billaay da nga gis xale bu tuuti. yàgg ci mbedd mi di guinze. Hmm. yàgg ci mbedd mi di agressé ci mbedd mi di sàcc. te xale yooyu nag dëgg-dëgg nag xëy ñu rek ne cëpp. <laughs> déedéet dañuy xam fu ñu jaar pour ñëw ci àddina. Oh, dëgg la kon loolu war nañ ci wax. Hmm. war nañ ko dénoncé. ngir gis ci ñooñu tamit suñu yàggee ci mbedd mi am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen di jël cinq ans formé leen. Hmm. xale yu fugué kenn seetatu leen laajte leen te xale yi suñuy dem ci mbedd bi li ñuy njëkk def xam nga ne dañuy njëkk changé tout Hmm. amul kenn koo xamante ne yaa ngi ci mbedd ñu lay tuddee sa tur. waaw ay ay ay ay Benzeek. Leuze ak ak Fassa. ay hmm. façon ay surnom yoo xamante ne. Hmm. pour que sax euh, ku lay set sax du amati trace fu mu lay gisee. di nga ci gis ndeysaan kenn koo xamante ne photo lay yor. ñëw su ñëwee yëkkati gisoo kii xàmmeewu ki fekk xale ba formaté nañ ko dugal nañ ko. yóbbu nañ ko ci grotte yi. ah léeg-léeg mu nuuru foofu ca grotte ay 2 mois 3 mois balaa muy génn. di togg ak ñu koy jàngal yoo xam ne waratuñu ko jàngal. nooy sàccee su guddee fooy dem. nooy diilee nooy defee lii nooy defee laa. te nga xamante ne mag nga tamit suñu soxlaa jabar te gisuñu jabar nit ñu jéggal jabaroo leen. Mm. Euh, alaaji. waaw ah, doy na waar de. waaw xam nga dégg euh, doy na waar de. dama la ni. doy na euh, taxawaalu bi moom ni ko gouvernement bi mën a dindi mooy. Mm. du ci xale yi. Mm. xale bu ñu jàpp. xam nga kala la fa indi. nga dem ba gis ko na mu toogee. palaasu daara ak palaasu daar daar daa bokkul mm. ñu ngi lim ñëpp di doomi soxna suñu amuloon daara ñu doon doomi soxna duñ leen topp duñ leen sumbali dal jël ki ci liñ Mamadou asalaamaaleykum aleykum asalaam. ila ziar waaw delloo naa leen ziar yàlla nangu ziar. bisimilah. ma di leen ñaanal seen jotaay bi nag ñett ñi toog noonu seen jotaay bi moom macha allah. <laughs> waaw bu ma fajoon daal toujours rek yéen ñett ñi ngeen toog jàkkaarloog nit ñi. ndeysaan léegi nag damay dugg rek ci waxu taalibe yi. Ah, xam nga Adja Degene. Hmm. man taawu Senghor. Hmm. dëgg yàlla li ñu gis ni kenn daawu ko gis. ah loolu kenn sañu ko woon. waaw kenn sañu ko woon. Hmm. parce que moom amoon na caractère boo xam ne. macha allah fa tubaarakallah. dëgg la. léegi nag Macky Sall nañu dimbali ngir yàlla di lay wër suuli hmm. parce que frontière yoo xam ne man Sénégal dafa amul frontière. Hmm. ku ñëw gàddu sa mbuus. Hmm. nga gàddu sa ëmb. walaay daal di ñëw dugg ñëw toog. walaay walaay. ñu ñu yi dëgg la. yàqal ñu ñu ñu nekk bitim réew ñun ñëpp yàqal nañ ñu. dëgg la. voilà Macky Sall nañ ñu dimbali ngir yàlla lay wër suuli yàq nañu réputation Sénégal. dëgg la. man ñëpp ñu réputation yàqu na. ndeysaan Macky Sall moom am na liggéey. waaye Youssou Ndour na liggéey. ndeysaan. Mm. parce que moom mu ngi ñafe pour ñun ñu ñëw ñëw Sénégal. image yu Sénégal bu jógee Sénégal. ndeysaan bu ñëw Sénégal jógee fa boo ñëwee daal ne waa man li ma Sénégal lu mu doon. dëgg la. xale yi nekk ci aéroport bi di traîner. dëgg la. ñii di géej ñii di def n'importe quoi. nañ ñu dimbali parce que lii xew nii. lii Sénégal lii du xale Sénégal. ndeysaan. Mm. xam nga nag nit mën na baax nag wax dëgg yàlla waaye nag baax ba lor say say say mbokk lor sa dëkk tamit joxe mm, mm. réputation bu bon tamit wax dëgg yàlla nag mm. lii yërmande amatu ca duñ ci am yàlla duñ ci am yonent bi ci am dara waaw ah, vitrine bi da war na set nag waaw jaratuñu dara ñun jaratuñu dara suñu réputation yëpp yàqu na bitim réew wallaay wallaay vitrine bi war na set parce que ñu dimbale te suñu këyit yi ñuy di koy jaay étranger yi ñu ci dimbali loolu du débat bi da waaye nañ ñu ci dimbali parce que li may wax ne ma def ma gàllankoor ma dem di wuti ci sama carte de séjour bi may door a ñëw. Hmm. tubaab bi préfecture na ma lu ñu wax na yow sénégalaise nga. Hmm. ma ne leen bon bu ma nekkulee sénégalaise ku fi ñëwati na leen sénégalaise da ngeen ko dàq ci biti. dëgg la ndax man kenn ma laajte. dëgg la Fatou laa tudd sant Thiaw di ko yoof. ndeysaan. voilà. alab <laughs> lébu dina parce que dafa am ay nit ñu fiy ñëw ñu leen di jox ay kayitu Sénégal. ndeysaan xam ma nag Macky nag wax dëg yàlla nañu dimbali am na ndeysaan ndeysaan xam nga mbay li mu wax nii vitrine u réew mi sax mm. dafa yàqu ci lu naqadee defar la nag waaye nañ jéem te ba pare xam nga wax da dafa metti waaye dafa am yenn yoo xam ne soo ko soo ci raayee nii rek du du du saafaraw dafa am nag ay kuréel yoo xam ne ci xale yi nekk ci mbedd mi ci lañuy amee lu ne du jeex ci lañuy ñuy amee lu ne <laughs> filmer xale yi boole leen léeg-léeg dajale leen ñëw kom xale yi moom da ngay tibb fu la neex ku génn bëgg tibb man daal xam naa lii daal dal na xel ku bëgg filmer jël yóbbu xale yi loo bëgg def daal yaa ngi ci xale yi ndax xale yi ñu ngi ci mbedd mi moom fii moom pédophile bu ñëw ah kuréel bu ñëw euh, euh, euh, trafic d'organes maanaam jaayi rein ñaata xale ñooy xëy disparaître fii <coughs> bërki démb ci élection yi ñaata xale ñoo disparaître du am benn trace hmm. kon képp yow fii Sénégal ngay gis dëkk boo xam ne da ngay ñëw servir u xale yóbbu dem yaa xam da ngay rey yaa xam dangay jaay yaa xam yéen ngay filmé yaa xam da ngay jël xotti jël ca rein ba wala loo soxla ndax am na sa benn mbokk mu ne bitim réew boo xam ne rein la soxla lépp a ngi fi li ci gën a yéeme nag mooy dafa ci ay kuréel yoo xamante ne nañ ma dégloo xel dañuy oowee seen bopp ay ONG te duñu ONG. ñoo xamante ne nekk ci xale yi yi ci mbedd mi lañuy utee xaalis. Mm. ndax dajale ay xale solal leen ay t-shirt filmer leen. Mm. yaa ngi dégg mm. def benn genre espèce su benn affaire jël ko dem bitim réew yóbbu ko ci sa ay partenaires ne leen enfant de la yu xoolal lii tubaab yaak nasaraan yaak naar ya jox la àddina ak li ci biir nga ñëw def sa poos jënd say 4 x takk sa jabar dëgg neexul. ajaa dégg nu jël soppe bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. yaaram noo leen di ziar bu baax. la delloo ziar lu bare bari. yal na yàlla yontu ak Serigne jox yoolu ziar. allahumma amiin allahumma waaw euh, moom day mbir mi may wax dafay mbir moo xam mi daanaka ñëpp la soxal. muy mbirum daara yi daal euh, li ci état bi war a def da ko tàmbaleegul sax waxuma laaj bi ci def dara. Mm-hmm. ndax. Euh, ndongo yi nga xam ne bii ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi état bi mën na koo faj te kenn du ko yëg waaye balaa def dara ñëpp kenn ku ci ne journaliste di wax fee keneen di wax fee ba mujj day moom ci boppam day embrouillé kooku baaxut. taalube buy taxawaalu ci mbedd mi boo ko ramassé mu won la sëriñam boo demee ba yegg foofa la ngay réglé mën nga koo réglé te journaliste di ko yëg di ko soow wala keneen di ko soow. <laughs> dara yi nag jàppale leen moo gën a baax di ci nekk di wax loo xam vraiment dafa nekkul. ci daara ndax daara dëgg da ci daara. Mhm. doo gis borom daara ji sax ba mu ba bay am looy xabat ci moom. Oh. ndax am na ci ñu yor daara ñoo xam ni état bi deful ci ñoom dara. Mhm. da la leen yàlla jox lépp ña ngi ko def ngir yàlla ak yoon bi. Oh. loolee nag bu leen ci euh, état bi fekkee kenn du am problème boo xam ne bi da nga koy wax ci daara ba journaliste ci France yeeg ñëpp ne ci daara yi Sénégal du Sénégal rek moo fi yor daara. ñuy jógee ci àll ba indi seen i taal bi ñëw di def ci commerce. kooku naïveté euh, état bi ci boppam moo ko def mm. waaye loo xam ni yow doo dem di di ko di ko def ci kër këri jàmbur waroo nangu keneen di jógee ci këram mm. di ko ñëw di ko def ci yow ba koo xam ni kii bokkul ci daara di ca wax kooku dafa war sa nekk mm-hmm. journaliste ba nekk France yoonam newul ci daara ji nekk senegal mm-hmm. bu ngeen mënee jàppale sëriñ si ngir yàlla na ngi leen jàppale ngir yàlla ndax lu ci waaye def sa bopp nga ko defal mm-hmm. yaa ngi dégg bu baax li ma leen wax de ndeysaan wax na lu am solo. wax na lu am solo Adja Dégéen solo. loolu moo lay wan ne. mbay Adja Dégéen mm. eh, ñi nga xam ne ñoo ñoo yëngu ci daara yi. Mm. tey dund daara. Mm. seen xool sax du neex. Mm-hmm. bëgguñ lii du neex ci thème bi. ñoom bëgguñ lii. waaw mais. li ko waral mooy ñi nga xam ne ñoo ci laxasu rek. ñi gàmm ñi gàmm ak ñi waaw ba yàq lépp. mais da nga wax lu rëy ci ONG yi. ONG boo xam ne bii. boo xoolee ki ko jiite. kaat kaatam lay war. Mm. soo duggee ci këram. Mm. bu ne lee dëgg-dëgg bu ne lee moom dëgg-dëgg bul toog doo toog. Mm. te bu taalibe taxawee ci bunti bu ne yaara bi naan mu ne ko mu ne ma delloo ma sama bunt. Mm-hmm. tey dund ci taalibe bi. Mm-hmm. tegul ci yoon du fi jeex. te du fi jeex de ajaa dégg du fi jeex xanaa nu jël ci ni ci ligne bi. jël ki ci ligne bi rek. salaamualeykum. see <laughs> jële ki ci ligne bi. salaam. <laughs> ñu ngi laa delloo ziar ku baax kooku. Euh, man la Cheikh Ahmed Tidiane Diarisso maa ngi woote Italie. Diarisso Diarisso waa Italie. ñëpp a ngi ci jàmm. Diarisso Diarisso mbay mbay mbay mbay jëlal jëlal Cheikh Ahmed Tidiane. jaari ñu ngi laa ziar lu bëree bëri. El Hadj Mbaye Berne ñoo ngi lay ziar. jërëjëf. ak Atiwil ñoo ngi lay ziar. sàggal bu wér Diarisso. ñu ngi lay ziar. El Hadj. ci jotaay bi. émission bii ngeen di def. wax dëgg yàlla ñoo ngi leen ci sant di leen gërëm. seetlu te am ci seetlu it ne parce que ku leen daj rek. Mm. koor yëpp la ñuy ñu bëgg a dugg ci benn thème bi ngeen nekk muy daara yi seulement au Sénégal dañuy wax daara bu ñu nee daara am na ñoo xam ne ñooy yëngu di indi yëngu-yëngu yi. Hmm. waaye ñi indi yëngu-yëngu yi ñooñu nañu xam ne yor ñu daara. daara ña ko yor daara yi sëriñ Saliou. daara yi sëriñ Mansour. yeneen ni daara daara amuñu lenn luñ ci mën a wax. parce que ku jur sa ba nga ci dem daara yooyu. waaye Ndakaaru Sénégal yi fa am amul fenn daara cinq kër demi la ñu doon yeewu jàng mm-hmm. ay suba yalwaani loo xam ne dañ mën a ndékkee mm-hmm. dellusiwaat di jàngaat mm-hmm. mais ay taaliba yoo xam ne six heures du matin ba minuit deux heures du matin ñu ngi ci mbedd yi kooku je trouve ça anormal non stop dëgg la dëgg la ndax ci dool ñu dem ba nga xam ni sous région yi ñu war ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp fu nekk la waaye di jóge fi nekk dina yalwaane dox Sénégal mhm. da ngay gis jigéen soo xam ne day taxaw ci mbedd yooyu juróom-ñaari xale dañ ay doomam la yor mhm. ci mbedd mi yalwaan ñu waxee ñu ne état bi état bi bu mhm. dara ñu dara ci kaw état ci nekk di wax moom état bi li def dañ ko war def gën mu def am courage am courage nit ñi la jiitalee dénk la boppam dénk la jabatam dénk la réew mi da def li nga def xam dëgg xam nañ ne. Mm. wax dëgg yàlla li muy dëgg. Mm. amul benn kilifa diine boo xam ne fi mu nekk yaa ngi jóg di kaas affaire mm, ñi nga xam ne ñooy kaas soit ils n'ont pas compris. wala yeneen mais li ñuy bañ. la ñuy bañ li ñuy bañ ku ci teg xam ne jaaduwul. sous région bi ñëpp fàq nañ ñëw di kër yalwaan. waaw daara joo xam ne dañuy yor téeméeri xale. ku ci nekk nga xas ko téeméeri dërëm par muy cinquante mille francs yi fàtte bu ko indiwul nga duma ko ba yaram wa tak da ngay jël kër am kër abal ko nit wala nga ko nit. boo xam ne ñaari saa dong lay jàng mën. Mhm. dajale ay xale ne ab daara la yor. Mhm. yàlla na di leen def yoo xam ne yooyu il faut que mu am. trafic la de ko dindi affaire yooyu. mën na ko trafic la de. Mhm. trafic la trafic bu rëy. ñu wax dëgg yàlla ngeen baal ma loolu laa amul lu ma ci wax. mais am na ci yoo xam ne il faut que état bi jël ay responsabilité. mbir moom boo koy def faw nga am ay dégg-dégg. mais ñi nga xam ne ñooy wax kooku c'est pas des daara. wax dëgg daanaka dañuy exploité xale yi. Mm. di leen def loolu loo xam ne kenn mënu ko nekk. Mm. parce que amul ndey joo xam ne dana di ko sànni di def yenn yi bàyyi daal ñoo responsable nañ ci seetaat taxawu ci yàlla na ci yàlla defal. jërëjëf jërëjëf Diary gis nga Alaaji. Mm. gis nga kii li mu wax dafa am solo. dafa yoo xamante ne ne ginnaaw ñiy gàmm ak ñiy raas dem bokkul Mm. il faut état bi jël responsabilité jël responsabilité nam mm. dimbale ne sax vrai daara yi jël responsabilité am dimbale ne ne borom xam-xam yu sell yi nga xamante ne ñu ngi ko bëgg def ci xale yi te yàlla tax mm. ndax tamit xam nga même gouvernement précédent bi ci suma juumul am na euh, lu demee noonu ci wàllu ay mendicité bi yalwaan loo xam ne suma juumul Souleymane na jaay yëkkati woon nañ ko fa yëf bi def bruit ñu wàcce bërki dem boo njaay Abdoul Mbaye yëkkati na lu ñu mel ñu def bruit ñu wàccee non waxuñu ñi nga xamante ne teg nañ ci yoon te dafay tax sax ñu dimbale suqali ñoo ñu nekk ci yoon parce que suñuy wax dafa fekk ni ñu ngi yàqal ñi nga xamante ne ñu ngi ci yoon ki jël ñàll ba na xaw ma ñàll xaw ma li ñu koy waxee ak ki jël yoon bi bokkul allah ji gis nga mendicité bii phénomène xale yi de yi dañ ci dem ba di leen loué <laughs> allah ji dëkk bi toj na gam <laughs> bi de waaw yëguloo ko da ngay xëy suba yoroo benn xale nga dem fekk ay xale yu toog maanaam kenn koo xamante ne nee naa yi dafa yor dar-dari loolu nga wax. luwee ko ay xale. da nga koy luwee ay xale di ko fay par jour mu luwee la su dee cinq nga soxla journalièrement mu luwee la ko nga jël xale yi xale yu wër la nga teg si woo toog ci mbedd bi nga ne meer nga ñii ñëpp sa njaboot la amuloo foo jëm nga waroon fóoti waroon liggéey war a def yëpp gis nga xale yooyu yëpp kenn bokk dara da leen luwe soo soo paasee. soo wàccee. de de dëkk bi yëngu na de. de xale yi ko dëkk bi yëngu na. allo ala jël ki salaamaaleykum. maaleykum salaam. tonton Gaye mi maa ngi laa ziar. bu baax. jërëjëf. tata. ma tata maa ngi lay sargal ma fii. maa ngi ziar bu baax. ñu ngi nangu ziar di la ko delloo. waaw maa ngi leen di bu baax di ziar. ndeysaan. waaw. ñu ngi lay tata ngi lay déglu ma fii. waaw. man dama daan wax rek ne tata bi xale yi taalibe yi ñu bàyyi si mbedd mi ñii ñu sonn ba bëgg a dee. ndeysaan. te dëkk boo dem dëkk bu mu mun ci doon. Hmm. yàlla moo ko def rek. dëkk bu mu mun ci doon dëkk boo xam ne dañu fay nekk te ay xale di leen ñu nekk ci mbedd mi tata dundu lekk dundu naan feebar des fois nga dox ba fekk. koo xam ne eh, oto day jaar ci kawam ndeysaan. du fi jeex duñu lekk duñu naan demu ñu jàngi toroxal bi ñu toroxal xale yi billaahi bu fekkee gouvernement bi ñu ngi déglu seen émission bii mm. ñëpp ñu xam ne ñu ngi ci Sénégal mm. am doole mën jóg mm. buñ ci mënee jóg ñu jóg ci parce que buñ ko deful Sénégal bi jëm kanam bi benn dëkk gisoo ko muy jël di toroxal xale di leen sonal comme taalibe yi nit ñu sonne ba pare di avancé mënoo nekk c'est impossible du duñu duñu avancé te bu dul woon sax li ñu yàlla jàppale mu doon dëkk jullit hmm. nekk tamit dëkk bi nga xamante ne ni euh, mag yu baax yi dañ fee nekk hmm. ndax mooy suñu chance hmm. bu du woon loolu billaay kon tata musiba dal suñu kaw bu yàgg dëgg la dëgg la ma yi ndax ndax tata lii metti na torop torop torop torop xale yi amal nañ leen ak torop torop torop torop nañ leen ak bu nag bu nag autorité yi mënoon def nag porte à porte daal di jël sëriñ yi nga xamante ne nii dañ ciy def dégg parce que maa ngi dégg ñu naan tey ci suba ci télé bi nag nii ñu naan dañ ciy def commerce. dañ hmm. ci euh, dañ ciy gagné xaalis maanaam. Hmm. Hmm. ndax xale bu nekk da ngay indi temps. d'argent par jour. bu ko defee ñu daal di jël daal di rassembler yëf yi mu daal di nekk ay 1 million. par ah ñooñu dañu yow coffre seen biir kii. maanaam kër ga lu màgget màgget am na coffre ndax ñoom dañ xale xaalis bi dafa bëri. ah, ah waaw dafa nag yéen ñi ci jóg <laughs> nag daal. c'est pas normal du tout wax dëgg yàlla nañ ci jóg euh, kilifa diine yi tamit nañ ci jóg parce que kenn mënul def ba jeex ñu ne ca dañ fa gis koof kii <laughs> yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam billaahi yàlla ñu ñëpp dégg képp ku ci mën a jóg ci parce que lii de ko deful hmm. nekk suñu coono ñu ñëpp hmm. ñu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tamit hmm. billaahi ku ci mën ci jóg dinañ ci jóg te yàlla tax ndeysaan jërëjëf waay billaahi jërëjëf jërëjëf waaw xam nga diggéen ngam yaa ci location bi denc. waaw mi ngi ci location waaye gis nga dégg mm. assemblée nationale. Mm. Mm. yomb na. waaye dañuy tër te duñu rendi ba bu ñu rendee duñu fees ba bu ñu feesee duñu cee delli. maanaam loi yi lañ dul lañ dul lañ dul doxal. loi. waaw dina am mais duñ duñ ko duñ ko appliquer. loi mais allah ji doon nit. Ah. yow mag ki dafa la woo jël teg la ci wetam. <laughs> am naa soo amoon entrée en kese ut ut président. damay wate. waaw waaw. loi. bari ñuy nekk ensemble te xamuñu waa bu ñu xamuñu sax loi. dëgg la. loi looy xalaat di ko xelli. Mm. mu war a jëriñ askan wi lay doon ba bu ëllëgee. Mm. la tax assemblée générale am. Mm. mooy ëllëg yokkute société bi. jëlee ko ci ligne Mamadou. Ah, fi nga jàppoon ah, baax na de. asalaamaaleykum fa lay dellu. <laughs> salaam. ñu ngi laa ziar. ziar naa leen maa ngi leen di nuyu. la fay lu bari. waaw man Paris laay wootee. bisimilah. dama bëggoon participer ci émission bi. yow rek la noo déglu ku baax. waaw man lenn rek laa bëgg xamal nit ñi. Hmm. mooy dama yaakaar ne nit ñi dañoo foog ne. Euh, règlement de compte bu mag bi nar am ëllëg incha allah. dañ ko dañ ko fàtte. mooy ñi nga xam ne dañuy jël euh, diine l'islam bi di jël mbirum daara yi di ko mbubboo naan dañuy jàngal ay xale ci daara di def leneen man dama foog ne ñooñu jànguñu ci xadit bi ñu naan kullukum raayen wa kullukum mas'ulun an raayati <laughs> xale bi ndax bés dina ñëw insha allah borom bi dina laaj ku nekk lu ñu la dénk naka la waajur yi nga xam ne may nañ leen yàlla may na leen doom ndax am na ñoo xam ne tey ñu ngi rey seen bopp pour am benn doom amuñu ko yow yàlla may la doom nga jël sa doom naan dama koy yóbbu daara jàngali ko mm-hmm. yow doon ne nekk sa doom xamoo sa doom ci li mu nekk mm-hmm. wallaahi bés dina ñëw incha allah lépp lu làqu woon dana feeñ man dama foog ne doomu aadama yi tey <laughs> dañoo foog ne ëllëg amul ndax ku gëm ne incha allah ëllëg am na doo sañ a def yenn yi hmm. xale yi ñuy bàyyi ci mbedd bi nit ñi di leen sàkku nit ñi di leen defloo naka sudul noonu ñun ñaar incha allah ku ci nekk muy mag muy ndaw bés dina ñëw ñun ñooy sonn ci rangu yowmal xiyaam bi de waaye yàlla du ci sonn ndax ku ci nekk dina la dina la laaj ku ci nekk dina la laaj yow lan nga def ku ci nekk dinañ la tegal lépp li nga def ci biir néeg bu lëndëm foog ne kenn gisu la borom bi borom bi gis na la te moom mooy enregistrement moom mooy yor enregistrement bu mag ba ku ci bàyyi xel loolu ku bàyyi xel loolu te ñu ngi foowee loo xam ne Sénégal mooy xale yii mm. ñun ëllëg suñu suñu suñu réew mi ëllëg xamuñu fu mu jëm mm. xale yi ñooy yor suñu réew ëllëg ah te dégg naa mët nañu cent mille éducation de tey lii amuñu benn éducation de base ci mbedd bi la ñuy nekk di taxawaalu di yu bon rek la ñuy jàng. Hmm? te kenn du ñuy ay xale lañ ay âme innocent lañ ay am sensible lañu xamuñu dara. Hmm. ñi leen sànni ci mbedd bi ñoo yor responsabilité boobu man du ma du ma du ma tooñ gouvernement man waajur yi laay njëkk tooñ man du ma tooñ gouvernement. parce que boo jëlee sa doom ne dama koy yóbbu ci daara mu dem jàngi alxuraan yow boo toogee. une semaine yow war nga dem seeti sa doom xool fu mu toll ci jàng alxuraanam boobu hmm. bu fekkente ne da koy def rek te yàlla tax hmm. war nga jug yow dem nemmeeku sa doom fu mu toll ci jàng alxuraan boobu hmm. ndax sa doom mën na faatiya ndax sa doom mën na lixlaas loo ko mën a jàppalee pour wan xale bi ne lii nga koy jàngal tey jii pour moom la du pour du pour du pour bàyyi ko ci mbedd bi muy taxawaalu ba soxna Degen bu ma naree wax li nekk sama xol bu baax. yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla. amiin changé xol yi amiin yàlla teg ci yoonu siraat. allahumma amiin. yal na yàlla fu yàlla toll di ñu fàttali ne ëllëg am na. bàmmeel am na wallaahi bàmmeel am na. amiin ëllëg mm. am na. te yàlla dinañu yee dinañu laaj lan la ñu lan lan lan la ñu def suñu suñu àddina bi dañ ci jaar donc. cay bésu pénc bés bu mag baa ñu ñëw. cay bésu pénc li ñu naan après la mort la vraie vie. ndeysaan ça va venir incha allah te bu ñu ñëwee yàlla bu ñu bokk ñu yàlla di mer. amiin amiin yaa rabbal loolu laa amoon ci lu may wax. walaay li nga wax li nga wax li nga wax tëj nga fi. li nga wax tëj nga fi li nga wax tëj nga fi boo ko déggee sama xel lay dem ci Ajaratu Faat Bintu Jóob. Eh, sa Seyda. borom xel mu rafet mi kàttanu wax yàlla wax. walaay macha allah mm, da boo gisee dégg mën la boo déggee mën la gouvernement. Mm. moo tax euh, kuy xëccoo ndomba. Mm. xamoo li ci biir ndomba xamoo li ci gouvernement. dëgg la alaaji kuy xëccoo ndomba. xamoo ko sax dëgg la. dañoo wax di boo nanguwul a ci biir kër boo hmm. génnee ci mbedd lañ lay yara dëgg la alaaji. ku yeewu sa biir kër rek. laala hmm. ci naq di ko bale mu génn ci kër ga. Hmm. waaye la rafet da nga ko fay bàyyi bu gan ñëwee mu gis taar ba boo liggéey bu demee mën a nit. wallaay macha allah. wàllu gouvernement ngi ji. bu rafet. ndax am na ñoo xam ne ñi ay parents la ñu seen deret. ña sàgg na seen dara na jiñ ko ci mbedd mi mm. gouvernement moom wax war a wax parents yi wax mbedd yi wax taalibe yi ba mm. ñu fi indi mm. ba bu ëllëgee ñu xam yan condition la ñuy toog dëgg jaadu na laaj yi soo paree ma jox la ñaari exemple waaw yu ma yéem jële gi ci lañ Mamadou eh, xoolal fan si club bi la yëngal waaw <laughs> asalaamaaleykum ndeysaan allo asalaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi leen di ziar ñoo bisimilah naa euh, ngi ziar bu baax di leen nuyu. Hmm. di ziar Tata Degen nag ngi leen nuyu bu baax. ñu ngi lay sargal bu wér. Ah, man nag li tax ma dugg sax mbiru taalibe yi. ndaxte affaire bi daf maa laal torop. Hmm. ndaxte dëgg la sax ay xale lan mais xëy na suñu xol tey moo daf nu émission bi daal touché nañu torop. ndaxte taalibe yi ni nu nekkee metti na ba ci kanamu yàlla. bu ma sañoon wax dëgg fa yàlla kooku dama ciy indi benn firnde rek. Mm. Euh, sunu sunu sang laay wax Idrissa Thiaw ibnu Serif Abdoulaye Thiaw. Mm. dafa am mm. benn bis. fan yi rek yàggul ndeysaan. muy dugg kër Serigne Cheikh Mbacke. mu Serigne Ablaye. gis benn xale bu jigéen woo benn taalibe nee na mu fagoon ni sax da koy sarax. mboo ko naan tey ngeen dee Macky da leen di génn réew mi. xale bi di jooy Idrissa loolu tuuse ko. mu dugg xalaat nee na moom li ko yóbbul xelam fi mu dem mooy. Mm. baayam bu tedd bii di Serigne Ablaye Diaw di xalif général de Layènes. moom dafa jaar ci ndongo daara. Mm. mu dem loolu xelam yóbbu ko foofu mu xolam fees. ba mu jël décision. Mm. nii day day jàppale ndongo daara yi nga xamante ne nii. ñoo nekk Cambérène ba dimanche bi incha allah. Mm. day dëmmal suñu benn journée boo xamante ni dañoo jël benn journée bi yëpp. di ko yendu ak ndongo daara yi. macha allah di defal leen maanaam yendoog ñoom defal leen ndékki fóotal leen affaire yooyu. la rek ngir cofeel gu mu am ci ndongo daara kon loolu lépp sant yàlla la. walaay wax ak ku mën a jàppale ndongo daara yi ndaxte ndongo daara xamul lu dul jàng pare dem yàlluwaan yi lu mu lekk. kon bu leen mënul sarax nga doon naan leen ñu dem bul leen métital. wallaay wallaay ndeysaan. wallaay bi dafa ma touché trop. wallaay wallaay touché na ku ne. ah su ku ne. wax dëgg fa yàlla ñu jàppale maxta kontaan nañu. ñu ngi leen di sargal bu baax a baax. alaaji waxtu wi dab nañu. Ah, waaw waaye maa ngi la doon wax ñaari exemple yoo xamante ne ne ci yu ma yéem ci ñi nga xam ne. Mm. daal ci mbiru enfant de la rue ak ñi nga xam ne ñu ngi boo daal. Mm. dama mës a dem euh, hôpital. di seeti suma benn xarit bu feebar. Hmm. bi ma ñëwee mu ne ma man daal dafa am kenn koo xam ne bi mu xamee ni sama xarit nga. Hmm. dafa wax ni loo heure boo yegsee rek nañ ko woo. ma ne ko mu ne mu ne ma dafa nekk fii góor la immigré la hospitalisé ak ay doomam. Hmm. ma ne ko ah mu ñëw mu ne waa waa a ñëw. ndekete waa ji moom ma nga nekk bitim réew jël ay doomam ñaari doomam joxe ko ci benn euh, ay ñoo xamante ne dafa jàpp ne. dafa jàpp ne. ñu mm. baax lañu. di yónnee xaalis di def yu kenn xamul mu yàgg foofu. yàgg foofu yàgg foofu yàgg fa defe ni doomam yi li ñu doon yónnee yëpp ñu ngi ci jot ba benn bés. Mm. waa ji na cëpp Sénégal bi mu nee cëpp senegal nag amul benn soxla lu dul jël oto dem ca région boobu. Mm. ba mu demee nag ca région boobu ñëw nuyoo ak yooyu yëpp ne leen léegi sama doom yi laa seet si ñu ne leen déedéet mënoo gis xale yi tey. mu ne ko mënu ma gis xale yi tey mais waajal ni may nettali de ñi ko dund ñu ngi ñu may dégg mu ne ko déedéet mënoo gis xale yi tey hmm. mu ma gis xale yi tey ñu ne ko déedéet sëriñ bi nekku fi ñun ñu fi bàyyi daal tey nee na xale yëpp nga fi ñu ne ko mënoo mënoo gis xale yi tey waajal ne leen mais yéen xamu leen li ngeen wax man mënumaa jóge Italie ñëw ba Sénégal jël teg sama kii ñëw di set samay ñaari doomi ngeen mën a ko ndekete xale ya condition ya ñu ne ca salte gaag xiif gaag feebar gaag dañu ça veut dire waa ji xanaa ak doom yi xanaa xaw ma ñaata weer. ba mu demee daal ba nga xamante ne dàq ni ko di ko repousser ndekete ñoo ñu ngi doon jéem a camoufler di fompaat xale yeeg di ko di leen sangaat ak yooyu kenn xamul dama la bëgg wax moom bi mu gisee xale yi dañu yéemu kenn ka sax mënu woon dox ba niñ koy hospitalisé ndax faiblesse feebar ràgg feebar ñàkk lekk waa ji am choc boo xamante ne jël ñaari doomam am lu ko naqadi indi hospitalisé leen ci hôpital fan gi ah ñuy jàpp di tàggataat xale yi ay ay mois ki mois ki mois ki mois oh. boobu benn lu ma mm. yéem loo xamante ne waa ji à l'époque daf ma ne woon lii man dama bëgg ñëw toog def ci émission mm. mu ne ma te at maa ngi bi lu ne maa ngi ko yónnee te man fii dama fi amoon yaakaar moo tax ma yem mm. beneen ma toogati benn waa joo xamante ne ne que mu ngi tëngeej mu may dégg bu baax a baax mu fekk si ma benn bés ci rajo nee na moom kooku moom enfant de la rue daf ko intéressé ba nga xam ne tëngee su toogee dafay xool xale yi eere gis nga àllaaji ko am seetlu hmm. da ngay di nga gis xale yoo xam ne dañuy eere rek di taxawaal ñuy def dara mu gis ci benn xale bu mel ni xale boo xam ne xamul fu mu nekk mu woo ko nekk ko foo jóge xale bu wax ko dëkk bu mu jóge ne ko daal dafa fexe ba dugg ci oto rek topp ñëw ba tëngéej rek wàcc hmm. ne ko man maa ngi am maa ngi war a am maa ngi war a am 16 ans jàpp 17 ans musuma gis sama yaay musuma gis sama papa ne ko nekkoon mu ne ko daara tel mu ne ko daagate mu ne ko man daal man xam naa ne at ba at dinaa daan naa gis sama moroom yi seen yaay wala seen papa ñëw di leen nemmeeku man kenn mësumaa nemmeeku mu yëkkati rajo ba xale bi indil ma émission boobu ñëpp a koy dégg oh. waaye ba ñu demee di creuser di creuser nekkete papa ja dafa doon defanteeg yaay ja ba goqi xale ba noonu xaw ma ñoqi xaw ma ñu koy waxee ci olof yooyu mm. jël ko ca ba nga xamante ne fereegul sax yóbbu ko joxe ko 16 ans 17 ans xale bi mel ni ku persécuté ku xaw a daf waaye ba nga demee ba topp yëf yi mu am ay problème mu famille yoo xamante ne def na ci mm-hmm. papa ji bëggul gis xale bi yaay ji bëggul gis xale bi xale bi xale bi xale bi wéet waaye mbay tàggool ah dëgg dëgg ak xam naa ni daal man xëyaam yooxu dina jubee fu ñu ko foogee xam naa daal ajaa laaj naan fu ñu ko foogee nag <laughs> xam naa daal ajaa déggéen yéemi na euh, toll nañ ci point boo xam ne bii point bu sensible la mm. waaye nag bu bu dëgmal nag ci yoonu defar la dëgg la kese nag bii wàll gouvernement am na ci cër. bii wàll kilifa diine yi am nañ ci cër. bii wàll tamit ñi nga xam ne tamit ñoo yor xale yi am nañu ci cër. wax rek nu war de. kon daal ci foofu rek ci lay tàggoo. di ñaanal ñëpp jàmm. di wax ne tamit dëgg-dëgg maa ngi sargal Adja Ndeye Gueye ci Mermoz moom tam ci ndey yu baax yi la bokk. ajaratu ah, dégg. wallaay wallaay soxna dégg may ñaan rek sëñ Fallou Galas Mbacke maane bu baax. ak nag euh, nga xam ne kii mooy Serigne Bara Fall rek euh, arrêt Double Less di ñaan bu baax na a nag euh, Alaaji Babacar Sarr transitaire mu juppee ko Serigne kër si nekk ca port macha allah ak ki nga xam ne ki nag mooy colonel sunu xarit ndeysaan euh, Pape Sy ah. nekk <laughs> Bamako di sunu lépp di ci ndokkeel bu baax nag ajaratu Anta Niang macha allah Alaaji Saliou Ndion di gërëmee du baax ajaratu Leena Fall Diagne ak Ñaaña Touré ak ajaratu Awa Diop sama jigéen ak ajaratu Daba Sy bi ak Fatou Sow ñoom ñëpp ak ki nga xam ne mooy Seynabou Wade tam maire di ko ñaal bu baax ay sama doom ay Aysatu Euh, kase di madame Dioum euh, ak ki nga xam ne ci nag mooy ajiratu Fadlo dégg naa sàng sama doom di ko tudd tubaarkàlla moo laaj ma góor Sow moo laaj Dioum ak wali ma ti di ñaal bu baax nag tubaarkàlla sunu xaddi sunu lépp euh, sunu grand visité sunu doom ndeysaan Seck Seck di Mamadou di ko ñaal bu baax a baax a baax moom fii bi ñu koy sanj mi ngi ci woon loxo mi ngi ci tubaarkàlla di gërëmit bu baax nag tubaarkàlla nag mm. Euh, ki nga xam ne kii fi lay tëjee rek <laughs> euh, muy sama xarit duma ko fàtte mukk ndeysaan nga xam ni muy sama doom teg ci eh. Pape Massata Diack ndeysaan ndeysaan mu mboorum daaru te sopp Cheikh Abdoulaye Mbacke ajuratu Awa Gueye mu ba suba jàmm macha allah alaaji loo def neex na ba man waaw ah man loo def neex na ba neex na sa doom it fatubakalla macha allah man de ko dara déedéet ah, déedéet na sax laasa na nag loom dañaa gis xanaa fatubakalla macha allah rek delluwaat di ziarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi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 hollandais yu baax yi ah façon façon ah alaaji loo ci xam nga nag ancien tailleur nga war nga xam liñ ma defal lal la mm. ah waaw baax na ci waaw ah, macha allah mooy dig ma ñëwal tay baas xam nga tay fiin ak ah. tay baas dafa bokkul. tay biñ ma defal lan la tey. mooy tay baas dafa libre. ah seeni wolof noo neex doxee. ah alaaji bii romb piste la de. ak veste waaw piste mooy lépp ak fant. <laughs> ak double évasé <laughs> xanaa gis nga double évasé <laughs> kon ba suba incha allah yal na yàlla fayal ñu leen imaam Mohamed Omar Niass bu Ngor Almadi ñu ngi koy nuyu imaam Cheikh Tidiane Cissé sama kilifa bu Medina Baye ah. ak Adja Fat Samb waa Medina Baye ajaratu Fat sàmb ñu ngi koy sargal bu baax a baax ak ganam ñëpp ndeysaan ñu ngi leen di sargal jërë ngeen jëf